dani sama waay da jàmm ñal jaara busuk wala ma sebi jaara jurujum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 damay foo rek maa ko tey. <laughs> noonu laay daal di jaaree nuyu Serre zone notre clic Dakar 221 mbégte ak contentement doon saa yu ñu xëyee jàkkaarloog yéen ci seen émission clic matinal comme ni ñu koy defee say su nekk fii ci Dakar clic Dakar 221 lépp loo xamante ni bi rek actualité la réew mi ak bitim réew sport bi international dara du leen daal di du leen daal di rëcc euh, moomoo ma daal di koy gërëm tane balaa maa gërëm kenn balaa may commencé. Mhm. ki jox café suba teel laay gërëm. yow jëru may lekk ndax circulé laa mais tant que naanuma café suba teel sam bopp bi day mel ni ku nekk kër V5 fay wala asitama mbaaru tung tung bu yeex <laughs> te defe naa ni bëri naa ci ay moroma yu bëri bu ñu xëyee gi neex na neex na neex na trop macha allah ah. tey moom Aziz defal nañu café gu neex tey Aziz laay laay fal du ma damay fale Zul ba sa kanam Zul yow li nga ñu doon defaral dara neex ah, dañ la ko rusoon wax rek tey la ñuy xam ne Aziz moo mën a café Zul café gi neex na de neexul daa bëri ñu <laughs> zil di xel mel ni kuy football <laughs> alors tey dañuy ñëw ak yéen ci li gën a fës defe naa ne actualité bi politique bi dafa yëngu mais showbiz bi mhm. ak jamono bi yëngu na lool ci kanam tuuti dinaa ci ñëw ak yéen lépp loo xam ne da di da di people waaye laataa boobu dañuy ànd ak ki nga xam ne moo di Khadija le temps que may naan café Khadija ana lan moo gën a fës tey ci xibaar Euh, li gën a fës ci xibaar yi lan la yéen kay daal di xëy fësal bokk na ci li nga xamante ne bi rek mooy le 12 décembre nekk bés bi nga xamante ne bi rek ci la Ousmane Sonko war a jouer avenir am jëm ci langu politique gi ginnaaw bi ñu daal di gisee ne euh, euh, jotoon naa dem fële ca tribunal grande instance bu Ziguinchor ba daal dafay amee ndam si le 12 décembre bi ñu dëgmal ci lay daal di dem fële ca diwaanu Ziguinchor pour euh, lu ni mel waaye nag dañu daal di gis ne ki nga xamante ne bi rek mooy ma Diagne ginnaaw bi ñu ko doon natal ka fa kam fële ci Assemblée nationale dafa yëkkante woon ay xamante ne bi tey nag daal dinay xëy afale li nga mooy la euh, muy xamle ne Ousmane Sonko ay lobby yoo xamante ne bi dañoo nekk fële ci diwaanu Qatar ñoo ko financé pour bu bu jëlee réewum Sénégal daal di a jël li nga xam ne mooy pétrole ak gaz bi nga jëbbal lu ni na gis nañu ki nga xamante ne bi rek mooy Cheikh Yérim Seck daal dina waxoon li ni mais bi jamono jooju kenn bàyyitu woon ci xel bu baax a baax waaye nag tey dañu daal di xëy journée yëpp daal di fësal lu ni ne ki nga xamante tënn bi rek euh, mooy ki nga ba léegi café gisul gi damaa daal di jàpp. bàyyiwul <laughs> bàyyeeguma ki nga xamante ne bi rek mooy Ousmane Sonko ay lobby yu nekk fële ca euh, diwaanu Qatar ñoo koy daal di financé ci euh, lu ni mel politique ba léegi di woy di lambe élection yi daal di nay dëgmal. Euh, li nga xamante ni bi rek mooy collecte des parrainages yi daal dinay commencé bëgg a daal di jeex ndax décembre bi ñu dëg dugg ni ci la li nga xamante ni bi rek ci la ñu war a jébal seen ay fiches parrainage euh, ndax ki nga xamante ni bi rek mooy kii waa Pastef daal di euh, parrainé muy Bassirou Diomaye Faye dina mën a bokk ci élection yi wala déet tey nak ay journée yi daal di ñuy xëy sampab laaj jëmale ci ñu wer lu ni mel waaye ki nga xam ne mooy El Malick nekk seen porte parole daal dina yëkkanti daal dina yaabe ci lu ni mel ndax mu ngi xamle ne moom moomee di Bassirou Diomaye Faye xam ne daa mën a bokk bu baax te daa eh, eh, bu war a bokk moo tax ñu daal di koy tabb def ko seen plan B te ba léegi ñoom dàquñu benn yoon ne Ousmane Sonko day nekk li nga xamante ne bi mooy candidat ci élection présidentielle ñu ñu dëgmal ñoom ba léegi jàpp nañ ne fii ñuy wax ak ñun nii ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko nekk candidat bu ex Pastef day bokk ci li nga xamante ne bi rek mooy élection présidentielle yi ñu daal di dëgmal bi xam eh, foobu yi di wéy di lemb fii ci réewum Sénégal ginnaaw ñaari milliards ci suñuy koppax leen jàppale ca diwaanu Kër Massar ñañ ca teg loxo ba léegi am na beneen réseau bu mag bu nekk ci seen ginnaaw boo xam ne ñu ngi leen di wër jamono ji ñu toll waaye nag lépp loo xamante ni bi rek warloo na ci dinañ ko daal di euh, topp indi leen ko fii ci Click Dakar 221 dara du dem ci rek dañu daal di dëkk kii gi euh, ci li nga xamante ni mooy wàllum sport gaynde Sénégal yi di euh, handball daal di nañuy feec handball coupe du monde handball daal di nañuy gagné ñi nga xamante ne bi na nañu seen siin ci quinze ci douze max boo xamante ne bi bu euh, neexoon la euh, mu nekk qualification bu historique ci suñu euh, gaynde yu jigéen yi waaye tamit suñu gaynde jigéen yi nga xam ne ñooy def wàllum football ci qualification CAN deux mille CAN bi CAN féminine bi la ñu daal di dëgmal ginnaaw bi ñu daal di dooree Égypte fii ci Thiès fan yi ñu gën ci ginnaaw demoon nañu fële nga xam ne mooy diwaanu Égypte pour jàkkaarloo ak pharaon yi waaye nag dañoo daal di am foofu nga xamante ni mooy ca max nul kenn ndam demul ndam dikkul ba tax na ñoom nag daal di ñuy décrocher seen billet buy tax ñu war a mën dem ca CAN féminine boobu la daal di dëgmal. Hmm. ci kanam tuuti ñu indi leen li nga xamante ne bi rek mooy wàllum international. merci beaucoup internationale. Hmm. waaye laataa ñuy xuus dañuy ñëwaat ci li a fës ci li nga indi euh, sama jigéen bi la nga xam ne moo di du euh, ma sama ji mooy sama équipe nationale féminine bi. Hmm. dama ci am joueuse bu mën a football. mën a football Ganaar dafa mën a football seen gis nga ak Eva gis nga bi ñu dikkee fii nga xam ne mooy euh, Sénégal dañ leen a dooroon ñeenti bal ci dara dem nañu fële ca diwaan Égypte mhm. nga xam ne gaynde pharaon yi dañu gën a am mille sens parce que seen pelouse la ñu nekk seen euh, public la ñu nekk mhm. waaye nag ndam ndam dikkul parce que nag jouer ak nit ci ci pelouse am dafa metti mhm. nga gagné ci tamit day nekk lu metti parce que gis nañ euh, ñi nga xam ne ñooy yi ñoom côté côté fekk gaynde yu góor yi bi ñu daal di mhm. demee foofu mhm. euh, la fa jotoon am ba waral ñun sax ñu jotoon cee ñu mhm. ci lu euh, nga xam ne mooy barrage coupe du monde yi ñu demee fii nga xam ne mooy bi euh, bu ñu dee dellu see fii nga xamante ne bi rek mooy Sénégal ñoom tamit ñu gàddu seen addinaay laser daal di leen koy teg ba mënuñoo gis lu waral lu ni waral ñu daal di def benn clamé FIFA ba ñu daan ñi nga xam ne ñooy Euh, équipe bu Sénégal ba defaloon max huit close seen mhm. diggante ak ñi xamante ni ñoo sud africain bi. waaw dañ leen mën rek nag même bu du woon dañ leen mën te naar moo gën a doy waar nag. dañoo mën a supporter. naar dafa gën mm-hmm, mm-hmm, <laughs> dafa nekk réew xamante bi liñ naan saa yoo ko defee dara da ngay bippé réew mu bëri crédit duñu bàyyi may dara ndax buñ leen defalee benn laser ñoom daal di ñuy jël parce que stade bi boo gisee ñëpp dañoo nga di woon li xam ne mooy laser tellement max boobu damaa affaire bi xale boo xam dafa focus rek moom moom seetaanul match bi ci laser bi dong la focus. non match boobu dama ko waree parce que dafa dural donte bu dee na côté boo xamante euh, daan yu sévère yoo xamante ni bii xaalis bi takku na lool. Mhm. ñu daal koy teg ci ndodu fédération bi waaye damay dégg ci internet parfois ngay dugg gis bu ñu jëlee li nga xam ne mooy dogal bi mu wàccee ñu naan ñoo tey ba léegi baax na comme que euh, décroché nañ seen. carrière daal c'est l'essentiel <laughs> ñu débloqué ci dafa bëri. Sénégal ku ku ne neexul da nga amul connexion loolu la xale yi faral di wax te ñun moom ku ñu bippe bippe xal réew mu bëri crédit. Mhm. te yoratuñu crédit sax wifi da ñor. wifi a ñu dox alors ñu leen di féliciter bu baax a baax non Cheikh Lyon di encourager itam di ñaanal ci kan boo bëree ñu dem euh, ñu am fandam bu baax a baax defe naa Khadija war naa mën a dikk ci people bi. voilà dañu dikk dëkk ci li xamante ne bi rek moom la people bi xëy fësal ginnaaw yëngu-yëngu yi xam ne mhm. dox na ci réew mi ak ak people bi yéen waa yéen axlu people ñun axlu <laughs> leen di nuyuwaat ci Click Dakar 221 di leen di jox li gën a fës ci tuwaan bi ci semaine bi ñu nekk rawatina démb ak tey donc dañu koy dooree ak coow li nga xam ne indi nañ ko démb diggante Wally Seck ak Sidi Diop jàppal Wally jàppal Sidi démb expliqué naa leen ni njàpp dafa dem ci soirée Sidi Diop ci soirée Wally Seck daal wax que ni Wally Seck papam la ñaari seen papa Sidi nag gisee wu ko noonu Sidi daal dinay génn gis ngeen ko démb mu daal di wax que ni moom du doomu kenn Omar Diop bi ko jur daal di koy rayal xar kooku moom mooy euh, papam keneen du papam mm-hmm. donc ñu bëri génn nag daal di ciy wax mu bëri polémique ay rakku Sidi Diop ak staffu Sidi Diop ñu ci bëri daal di nañuy génn daal di wax que ni euh, Sidi la ñu àndal daal di defendre seen leader ki nga xam ne nag moo jaaxal nañu mooy Bousse Ketchup ku xam buuse xam ko ak Subatel ku xam Bousse xam ko ak Pape Diouf ak Sidi Diop ku xam Bousse xam ne du may dara Waly Balago Seck mais démb dañ ko laaj ci coow li mu ne yoonam nekku ci Moussa Deme dafa maandu. Moussa Deme jël na maandu gi jël na médicament maandu bi daal di koy def li nga xamante ne bi rek mooy aar moom voilà parfois euh, situation dina toll foo xamante ne bii leer na la o soo mhm. génnee mën naa dégénérer nga jël li nga xam ne mooy maandu. da ko def sa aar mu noppi bëri nag jaaxal na leen ah que Bousse jamono yee ñu génn Wally Ballago Seck bi mu demee Bercy ak Sidi Diop Bousse daal dinay génn ne waa Mali ba ñuy yuuxu naan Wally waxuñu Wally Mali lañ wax mu bëri woon coow nag. Mm-hmm. est-ce que nekkul dafa am fu mu jaar ak faramaare nii parce gis nañ boobu coow li amaan na Bousse nangu cee wax jaaxal nañu bëri defe naa ni nag li nekk ci biir xamuñu ko mais en tout cas bu dee daa am. Mm-hmm. antécédent ak faramaare wala dafa dafa maalu wala lii mbay si njaay doon wax ni Boucher dafa bëgg Wally dëgg la dinañ ko indi bu fekkee am nañ ci lu ñu leer donc dañuy dem ba tey ak Samba Peuzzi mi nga xam ni d'après suñu naataango yooyu di kawteef wax nañ ni Samba Peuzzi dina takk kenn ci jumelu Mame Boye Diao yi mariage bi dans quelques semaines wala dans quelques mois en tout cas waa kawteef loolu la ñu wax que ni ki nga ne moo di Samba Peuzzi dina takk kenn ci euh, jumelu Mame Boye Diao yi Mame Boye Diao je vous rappelle que candidat la ci présidentielle yi di ñëw nekk homme politique Oustaz Modou Fall moom itam daal di toog ci émission bi la nga xam ne moo di Midi Plus di am TFM daal di wax que ni tiktokeur tiktokeur yeeg tiktokeuses yi yëfi dof dong la ñuy def te fu ñu bu ñu génnee nit ñu def leen star jàpp ni ay Michael Jackson ñoo génn te defuñu dara lu ñu fi dof. voilà gis nañ jamono ji ñu toll réewum Sénégal pour nekk fi star dafa daal di yomb. Mhm. da ngay daal di génn def sa benn toj-toj ñu daal di commencé di invité ci plateau yi def la star soo génnee mhm. di la applaudissé voilà comme moom tamit Oustaz Modou Fall. Mhm. waxati na waxati na de non sax Modou Fall moom ay waxam moom moom lu mu ragal wax dafay toog di jooy waxati na daal sax Modou Fall moom ragalul ay waxam donc keneen ki nga xam ne ragalul lu muy sañsee muy mi yàggisee ndax mi yàggisee gis nañ depuis bi mu divorcé ba léegi dafa changé style vestimentaire am mm-hmm. am nañu d'accord am nañu d'accordul euh, mu def benn concert nag waaye ci concert bi dañu gis ni am na benn fans bu nekkoon ci suuf naan ko Mia wàccel sa yére bi parce que li mu soloon dafa gàtt dafa yëg mu naan ko wàcceel sa yére bi te gis nañu bëri di ko critiquer nee nañ de du pudeur à la vulgarité loolu la ñu wax d'après suñu naataango yi nga xam ni ñoo ko indi di waa kawteef ñu bëri di critiquer style vestimentaire voilà ñu bëri ñuy gis euh, critiquer li nga xam ne loolu moom mu ñu ngi ko commencé depuis singalam appareil idée Mhm. single idée bi bu mu passé mhm. euh, beneen single bi ci topp ci lañ commencé gis ne Mia muy commencé sensé complètement ay style euh, vestimentaire am rawatina mhm. bu def li nga xamante ne bi rek mooy ay soirée wala mu def ay concert day changé day sol sol yoo xamante ne bi maanaam dina jaaxal sénégalais parce que xamee ñu woon Mia ak sol boobu mais tamit dafa lancé carrière solo war ci dem moom donc tamit peut-être xëy na carrière bi moo ko laaj moo tax muy solee noonu mm-hmm. mais sénégalais affaire bi da di jaaxal parce que Mia bu ñu ko xamoon muy ànd Maabo mm-hmm. dañ doon def euh, dañ doon sol promouvoir li nga xam ne mooy tenue africaine mm-hmm. du sañse lu nice ay vax ñaw ko ñaw yooyu yu jot mosuñu gis Mia mu sol loo xamante ne bi dafa xaw a vulgaire donc bu ñu en certain temps mu divorcé ñu gis ne mu kat changé na li nga xam ne mooy style vestimentaire am te manière ba mu ko changé dafa dafa dafa révélateur de tamit c'est normal sénégalais yi génn wax ci lu ni mel que xamee ñu ko ko donc mu ngi mel ni tey moom moo yow ñu xamee la ngay animé animé ba ci nga a nekk journaliste. wala may rap euh, voilà ngay rap day nekk loo xamante ni bii. day jaaxal li nga xamante ne bi rek mooy internet yi nga xam ne ñoo tamoon di bàyyi xel Mia Guissé xam Mia Guissé ak morceau yu bëri mu fi génne ànd na ko consommé boobu li nga xamante ni mooy No Face di sol sol yu yiw yoo xamante ni dafay rafet ba gars yu bëri doon leen ci roy sax di def koo gis couple ba gis mu mu naan maabo maabo tey ñu dox tey ba gis divorce dox seen diggante mu nekk rupture boo xamante ni bi tamit kaw jaxase woon na li nga xam ne mooy Sénégal fans yi mm-hmm. parce que amoon nañu ay fans mm-hmm. donc bu rupture amee fallait nit ñi jaar nii mais nag li nga wax dëgg la de da ngay nekk ci lii def à tout moment mën naa bongo de <laughs> jamono ji Babacar ak Karbala bëgguma leen à tout moment mën naa bongo ngaccar ngaccar gi faa mu ne ci <laughs> alors man nag euh, Mia Guissé la àndana ah, parce que artiste nit ñi Sénégal dañuy jaawale tenue de scène ak tenue bi nga xam ne da nga koy sol di dox ci mbedd bi mais tamit moom mool mhm. Sénégal dañoo am seen i seen i réalité ak seen i ay valeur am mhm. euh, Sénégal xam du du du États-Unis du grave parce que da ngay gis benn artiste boo xam ne États-Unis day dugg ak maillot de bain ci seen slip soutien. doxantoog moom def lu ko saf. Sénégal baaxuñu loolu xamuñu loolu parfois boo solee yem tenue yu révélateur yi day suscité li nga xamante ne. mais nag mais nag artiste pour mu pour mu yóbbu musique am pour mu yóbbu musique am faaw mu def li musique di laaj. faaw mu def li musique bi laaj dafa am tenue de scène tenue de scène mënuñu ko bañ artiste parce que Mia loolu mu sol mhm. gisuñu ko benn yoon mu def vidéo boo xam ne këram la ko defee ndax dafa challenge ci TikTok bi mhm. gisuñu mu def benn yoon vidéo boo xam ne dafa sol loolu ci këram daal di toog mais tenue de scène la sol mu mhm. ngi mel ni Wally Ballago Seck ba muy ñëw di indi tenue de scène ñu bëri d'accord uñu woon ñi naan pain bi ñi naan sac bi alors que tey jii nii fi mu nekk nii mën a woy yóbbu na ko fa mais style tamit daf ko fa yóbbu parce que artiste dañoo soxla style ci moom donc Mia Guissé c'est normal dafa jël carrière solo pour mu jaay musique am la preuve ni muy solo ni woyee ni mu moo tax jamono bii doo def soirée wala doo def concert te doo ci woo Mia Guissé mm-hmm. donc nañuy bu ñuy jaawale même Viviane dañu am problème boobu ak moom da ngay gis parfois mu sol dara loo xam c'est vrai que li koy critiquer bëriwul mais parfois sol dara loo xam dañaa ko mag nga waroo def li waroo def la mm-hmm. mais tenue de scène dafa am mm-hmm. ne ci kaw scène lañ koy sol ñu kontaane leen bu baax a baax ba tey yéen a ngi ci seen euh, people actualité du jour waaye Khadija mu mel ni war naa a delluwaat ci yow daal di lay laajaat Khadija ana lan moo gën a fës euh, ci actualité internationale bi. Euh, voilà moom actualité internationale bi da dina yëngu ci semaine bi ginnaaw liñ ci liñ koy doore mooy benn tir de drone boo xamante ni bi armée nigérienne bi ñoo ko daan lancé waaye nag daal dinay rey ay nit yu bëri daal moins quatre vingt cinq morts ci sensé mu nekk waaye c'est grave c'est grave c'est grave loo xamante ne bi armée nigérienne bi moo ko daal di def euh, benn tir de drone surtout nag euh, bi muy fekk loolu bi muy am dafa fekkoon benn cérémonie amoon fa cérémonie religieuse euh, ay li ci li ëpp ci ci ñi ñàkk seen bakkan ay jigéen lañ ak ay xale. Oh mu nekk lu lu metti lu metti lu daw yaram ñu leen bi di ñaanal ah, ñoom ñi nga xam ne mu di leen masaw bu baax a baax. doy na waar lool doy na waar lool. Euh, voilà dañuy dikkaat ba léegi ci Côte d'Ivoire euh, ginnaaw li nga xamante ni bi rek mooy kan bi ñu dëgmal war a am fële ca diwaanu Côte d'Ivoire mbedd ya ba léegi di wéy di bousee ba tax ñu daal di def taxaw seetlu ak euh, ci ay infrastructure yoo xamante ni bi président bu nga ko fay daal di doxal rawatina yaatal li nga xam ne mooy mbedd yi. ak gox gu xani pour euh, bu kan bi jegesee li nga xamante ne bi rek euh, mooy circulation du am parce que Côte d'Ivoire surtout Abidjan nekk capitale bi dafa nekk loo xamante ne bi day yomba circuler waaye nag kan bi war a am li nga xamante ne bi rek mooy le treize cent vingt jàpp le onze février ba léegi circulation ba di wéy di leen inquiété euh, tax nañu daal di ciy def ab li bilan pour yaatal li nga xam ne mooy kaan bi mën a déroulé ci jàmm ak salaam sans circulation parce que nga war a dem seetaan match bi circulation bloqué la ci embouteillage bi balaa ngaa eggi bi jeex loolu moo tax ñu daal di def li nga xam ne mooy benn travaux pour yaatal mbedd yi defaraat yeneen yoon yoo xamante ne bi gars yi ci mën a jàpp circulation bañ a am jour kaan bi c'est normal ah comme équipe yëpp boo organisé kaan wala coupe du monde moo xam lu ci mënti doon da defaraat sa que gan ñoo ñëw te bu ñu ñëwee seen lañ yor seen làmmiñ lañ yor lu ñu gis dañu koy yóbbu te euh, suñ ay nawle lañ donc bu ñu ñëwee c'est normal ñu daal di ñuy dalal c'est normal ñu daal di indi loo xam ni ku ñëw dina ci gis boppam et puis kan bi dina organisation bi dina jaar yoon ñuy ñaan Sénégal suñu gaynde yi yàlla mayaat leen ndam ñu jëlaat ko rek dóor dóoraat dóor dóoraat <laughs> Royaume-Uni ak Rwanda daal na ñuy signé benn accord boo xamante ne bi dafa visé ci expulsé képp koo xamante ne bi rek migrant clandestin nga jëm ci ci foofu ci territoire britannique mm. li waral li ñu mel nag ba léegi xamuñu ban lan moo waral loolu waaye nag képp koo xamante ne bi rek migrant nga mhm. nekk ci territoire britannique peu importe nationalité bi nga bokk mhm. dañ lay daal di expulsé euh, li ko waxal du benn lenn lu benn accord boo xam ne royaume Royaume-Uni danañu koy signé at ñii di waa Rwanda mhm. Dramé moom si ni daal di nañ koy signé ñi ak waa Rwanda man tant que ñu ngi jubóo rek amoo problème keroog yaa ngi fi indi ay ak Palestine man tant mi ngi am rek amoo problème. ci Israël Palestine bi waaye ñi nga xamante ne ñooy waa ginnaaw waa Mali Burkina Faso démb nag euh, euh, semaine bi nag ci dimanche gi. Euh, tuuru ñi nga xamante ni ñooy waa Niger lañ euh, li nga xamante ne bi rek mooy benn benn lii mouvement boo xamante ni mu tuddoon C5 nekk euh, mouvement mën nañu ne terroriste mën nañu djihadiste boo xamante ni bi mhm. euh, mu ngi fa nekkoon diirub neuf ans mhm. moom lañ fa daal dëjati mu hmm. nekk loo xamante ni bi gis nañ ko gis nañ fee ca Mali hmm. daal di ñu fay mouvement libre terroriste yoo xamante ni yàggoon nañ fa lool hmm. gis ko ca Burkina Faso euh, Niger nag ñoo daal di jël relais bi toll ndax yëkkante nañ fi benn mouvement boo xamante mu ngi tuddoon C5 Sahel nekkoon fa diirub neuf ans daal di leen daal di dajati fi mu toll ne ba daal koy daal di ko accaparé. loolu ak sant ak ak cant la ah sant la mm-hmm. parce que Afrique defe naa ni war nañu dépasser loolu. war nañu mm-hmm. dépasser xeex diggante kii ak ki war nañu dépasser affaire de terrorisme te comme ñu ngi ciy bay seen waar. Mm-hmm. loolu c'est l'Afrique qui gagne parce que bëgguñu benn yoon suñu ay nawle di ñu gisal yenn yi donc ay terroristes ak yooyu yàlla bu mu fi amati parce que Afrique terre la boo xam ne yooyu waru fi am dañu baax. voilà li ñuy daal di tëjee li nga xam ne mooy international bi mu ngi nekk ci conflit Israël Palestine bi mu waxoon. du ma <laughs> waaye sese nañu fi mu toll nii. Ah, guerre bi voilà guerre bi teg nañ ko suuf waaye ñi nga xam ne mooy armée Israël bi mu ngi woy ba léegi di élargir ses pressions sur le sol de la euh, ma nag euh, daal di neexul ñi nga xamante ñooy waa Palestine. Euh, mhm. ndax fi nga xam mooy xëccoo bi mu ngi nekk diggante bande Gaza la ñuy xëccoo. Mhm. donc ñi nga xamante ne bi rek ñooy waa armée Israël bi. ñu ngi mhm. wër wëy di. defal li def li nga xamante ne bi rek mooy euh, opération dox ci ci bande bu Gaza euh, waaye nag ñu ngi ñaan li nga xamante ne bi rek mooy ak daal gannaaw sose nañ li nga xam ne mooy feu bi mm-hmm. te gis nañ histoire bi taroon na lool ay mm-hmm. xale ak ay tout temps que ñoo ci ëppoon lu ñu daal di ñàkk seen bakkan mm-hmm. euh, ginnaaw bi nga xamante ni pat pataaral gi nga xamante ne bi rek monde entier bi def nañ ko face à ces violations à ces crimes yoo xamante ne bi kenn rafetlu ko Euh, mhm. lii nag la euh, euh, international bi daal di xëy ndar kepp. Mhm. pour yow dinaa dinaa yéey yàbbi ci Israël Palestine est-ce que mos naa dox ba dégg géwél muy xeex. géwél day moom moo woon ak géwél. Mhm. bu xare daan am ñoo doon jiitu te bu géwél bu ba jàmbaar yi daw géwel yi duñu mos a daw dañuy taxaw dékku bal yi. wala ñu teg seen i ndënd jàkkaarloo ak xarekat yi di jàppante léegi la géwél yi daw. <laughs> dañoo dañoo mën a boole të tëgg xeex. mën nga ànd woon dégg ñu naan géwél bu répété ci xare lu mu jën. waa jiiñ nañ ko jiiñ rek mbay mu dem <laughs> ma ne ko mbay nañ jël géer ñi rek ñu dem mosoo gis géwal bu xeex. eh soo kii ki ne laa mooy na ko nee na keroog ba xa ba géer ña dawee. Ah. sama moo taxawoon dëkku bali. géer ña dañoo daw mais boobu ana géwal bi. da doon ah, dëgg naa fa mu jàppoon ci gàmm moo neex rek ba tax na mënu koo bàyyi <laughs> ak yenn saa nga jàpp xam ne doo ko bëgg a bàyyi ko bëgg a bàyyi xam naa dinaa commencé di la jàppal temps ci matinal bi <laughs> alors lii la leen di doon tey fii ci actualité people Khadija la ngay tàggu ak actualité politique bi voilà léegi nag moo fi jotoon réew ci ay xibaar mhm. euh, loo xamante ne bi rek ñeel na euh, waaye man li neex mooy sport bi jamono juñ toll li nga mhm. xam ne mooy Bundesliga bi ak euh, Ligue des champions mu ngi daal di toj ñoom Bellingham ay Rodrigo ñu ngi yëngal affaire daal surtout Bellingham euh, ñu ngi ko yëngal bu baax a baax li nga xamante ni mooy Bundesliga bi ñoom Mohamed Salah euh, Bayern ni mu ngi mhm. rajaxe jamono ji ñu mhm. toll rawatina nag euh, Ligue pro saoudienne bi mhm. nag di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte contentement say su nekk ñu di leen indi lépp loo xamante ni bi rek actualité la nationale internationale showbiz lépp loo xam ne ñeel na international bi ak sport di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox rendez-vous demee incha di jaajëfal moom en même temps di jaajëfal suñu caméraman bi borom café gu neex gi euh, di jaajëfal suñu DG Jules borom café na naqari gi man maa ngi ci Aziz <laughs> ñu ngi maa ngi ci Aziz alors ba gisaat au contraire ba gis keneen mais nag yaa ngi def lu ma métti ah. ci waa Real ngay wax te man Catalan la Joao Félix mi ngi toj championnat bi keroog fii la rey waa Atlético <laughs> Pedri mi ngi toj championnat bi Gavi dafa mel dafa blessé waaye moom tam mi ngi toj del wax ci ñun nag waa Real rek <laughs> alors defe naa kontaan naa ci yéen yéen itam catalan yi. Mhm. yaa ngeen jëf waa Real Madrid da ngeen ma baal. catalan la c'est normal alors di leen kontaane bu baax a baax noo seen internaute waaye balaa ñoo dem kii wax kii dégloo mbokkam dañ leen di bégal bu baax a baax ñoom itam mënoo waxtu Côte d'Ivoire te du ma wax sama mag ju jigéen ji fay sëy sama cousine de valeur Marème mm. Dieng kenn yow euh, yaayu Zara kenn yow yaayu may mun a kontaan ci bu baax a baax sama jigéen boobu moo may doxal marché yi biir Côte d'Ivoire saa bu jox may numéro ne ma defal la neex <laughs> kontaan naa ci yow bu baax a baax alors di ko kontaanee itam moom euh, dafay anniversaire samay papa bopp ji ki nga xam ne moo di Amadou Bane borom baan shop di ko kontaanee bu baax a baax di la wax un joyeux anniversaire yow dundal wéral yokkal faramarin bu mag bi bëgg loolu Wally Balago Seck Lattu Diop Degen Baye nga xam ne moo di séeri Fatou yaayu baayu mat leen kenn du yow moom faramarin la dafa bëgg Wally Seck mhm. ba keroog dama ko dafa ma mere Wally day ñëw Kër Massar ma ne ko papa ba xam dangay dem mu ne nan laa a laajee loolu moom nan lay dëkkee Kër Masar Wally di ñëw Kër Masar man moo koy laaj ba xam day ñëw mu mere a ci alors joyeux anniversaire yow ma nuyu sama yaay tamit sama maman jooju nga xamante ne bi référence la mhm. euh, si ñun maman Nogoy di ko jaajëfal bu baax daf ma yóbbante nag mhm. te ma ma def émission ba pare te jalalewu ma yóbbanteem day nekk loo xamante ne bi du baax mhm. tooñ lay doon donc daf ma yónnee ci ki nga xamante ne bi rek mooy Jibril Diop mhm. nee na daal dinay dégg li nga xamante ni bi mu nga ko daal di tagg dem moom mhm. caw la sant te Jibril da ko daal di defal loo xamante ne bi mbokk yi famille bi ñëpp a kontaan yow Jibril ñu lay jaajëfal bu baax a baax sama yaay ne bég na ci yow kontaan na ci yow te bu la gisee dina la teral <laughs> maa dina ci jot kontaan na bu baax a baax a baax dina ci jot maman Diouf Nder itam kontaan na ci Jibril Diop sama yaay jooju anniversaire bi neex na di la kontaanee bu baax a baax démb gis naa a def vidéo waaye sama bos la nga ci bind neex na ma caat daal nga faral <laughs> dëgg neexul di leen kontaanee yéen itam nga xam ne yéen a doon topp je vous rappelle que 23 wala sax 22 23 24 décembre Wally Ballago Seck mi ngi biir Gambia ci concert yoo xam ne daf leen koy may yéen waa Gambie. dina neex dina yëngu Click Dakar mi ngi ci biir maay booy itam mi waajal événement xam na fii ak semaine prochaine dina ci ñëw gën cee yaatal ak moom bu ko defee ñu daal di moom fii daal di waxtaan ak moom ñu ambiance mu neex kontaane naa leen bu baax a baax noo seetante note Aziz moo nekkoon ci caméra bi ki nga xam ne moo di moo nekkoon ci montage bi assistante bi amoon nañ fa ki nga xam ne moo di Souley borom café gu neex gi baa ma baa ma sagal la rek borom café gu neex <laughs> <laughs> yàlla sàmm nekk ci jàmm ba lundi ak jàmm suba Tisa mooy ñëw. Tisa mooy ñëw suba Tisa suba mën naa toog kër ga Tisa mooy ñëw <laughs> alors Tisa bu subaa dina leen dëggal ci ambiance bu neex waaye itam dina leen indi lépp luy people mm. maa fi jaaroon am mawut